facteur de régulation de la vie publique et de la vie politique parce que justice mooy àtte lépp boo xoolee rek euh, ci élection yi mujjee jógee euh, bu du woon conseil constitutionnel kon heure bi xëy na ñu nekkoon ci ay soubresaut wala ay tolof tolof mm-hmm. tey lu jiitu loolu président Macky Sall jëloon na benn décret boo xam ne euh, conseil constitutionnel topp ko ci donc justice toujours day réguler mm-hmm. moo tax boo xoolee deux mille vingt et ba léegi nit ñi dañu am ay tawat yu ñuy def par rapport à l'administration de la justice les magistrats eux-mêmes l'UMS dans un colloque nee na qu'ils se plaignent de l'immixtion de l'exécutif dans l'administration de la justice mm-hmm. donc loolu mooy yi nga xam ne dañ ci waroon ay saafara pour ñu am une justice vraiment indépendante vraiment forte ba noppi justice buy gérer ses plan de carrière nga xam ne duñ ko assujettir ci ah. kenn. Mm-hmm. donc ci autour de ça dépendre d'un homme politique du dépendre d'un mm-hmm. homme donc il y des questions qui sont posées yoo xam ne euh, elles et être vidées damay bañ a. Euh, euh, liggéey bi. primeur bi laay bañ. <laughs> mu échapper à la commission. Uh-huh. mais voilà ñu ngi ciy liggéey daal parce que justice. Mm-hmm. dafa yàgg yàgg am problème ak justiciable. donc on est en train de voir comment maintenant. renforcer euh, les magistrats c'est-à-dire yokk leen dooleel leen ba noppi ñoom ñoo jëlal seen bopp seen indépendance. Uh-huh. parce que yaa a que des magistrats indépendants.